nga xam ne mooy néegu sëy yi nga xam ne euh, léegoo léeg nga gis ku góor koo xam ne dafay ànd ak soxnaam léegoo léeg mu am jafe-jafe ci wàllu yàggaay ci ànd ak soxnaam nga xam ne bu commencé ànd ak soxnaam rek du yàgg dara nga gis mu daal ci pare euh, ñu koy wax daanu ci baat bi ngeen jégal ma am ñoo tubaab bi di ko wax éjaculation précoce waaw mooy sëy boo xam ne borom buy ànd ak soxnaam du ci yàgg loolu am nañ saafara su baax soo xam ne boo ko naanee rek dafay dëñ ci waxtu wu nekk dafay dafay dëñ ak nu mën ci mel am ci ñoo xam ne seen wàllu euh, sëy seen duñ am kàttan bu dëgër boo xam ne dana mën a dimbale soxna si euh, ba mu yëg bànneex bi mu war a yëg dëgg-dëgg loolu am nañ ci saafara am na ci ñoo xam ne yàlla day dogal ñoom seen ay soxna duñu yëg bànneex loolu am nañ ci saafara jigéen di nga xam ne dafay ànd ak borom këram nga xam ne buy ànd ak moom rek loolu am nañ saafara si xam ne bu ko jigéen ci naanee loolu dafay dëñ ba set wecc ci moom bu fekkee ne nag wàll ko góor ki la nga xam ne xolam wala xelam dafa nekk ci yeneen mbir boo xam ne bu gisee soxnaam sa xelam dootu nekk ci moom jafe-jafe boobu la am nga xam ne wàll wàllu néegu sëy xelam nekku ci du sëy ak soxnaam wala bu sëy ak soxnaam tamit day forcé rek dem ci soxna si ngir bañ koo lor waaye loolu loolu nga gis noonu loolu jàngoro la joo xam ne dina dab nit te loolu kum ci dal rek incha allah am nañ saafara si boo ñëwee buñ la suñu ay garab soo ko naanee dana dañ nit ki nga xam ne nag wàllu kàttanam dafa des ci wàllu sëy nga xam ne du am kàttan bu baax dëgg dëgg xam nga góor buñ koy wax buñ koy wax mooy sëy tey nga ngay sëy am kattan lu wér nga xam ne ku soo àndee sa soxna soo paree rek xolam sedd ci yow ba nga xam ne dina xam ne yow mii lim soxla ci boppam jox nga ko loolu tamit ñu bëri am nañ jafe-jafe boobu jafe boobu am nañ saafara si nga xam ne moo koy dindi ci nit ki su dee góor la bu dee jigéen la am na ci jigéen ñoo xam ne seen dund nañ ba am ay doom mosu ñu xam bànneexu sëñ loolu feebar la jàngoro la bu ko nit ki amee incha allah bu dikkee ci ñun danañ ko dimbale ba loolu dañ ci moom ba set wecci jigéen ñi nga xam ne dafa të ci wàllu am doom nga xam ne mënta ëmb day sëy mënta am doom yàlla dogal na am nañ saafara si nga xam ne soo ko soo ko utiliser rek boo ko jëfandikoo incha allah yàlla dana la teqalil loolu moo xam sa wàllu euh, euh, euh, nenukaay yi nga xam ne moom mooy trompe nga xam ne moom la ñuy wax trompe loolu si wàllu nenukaay yooyu boo bu fekkee danga ca am jafe-jafe boo naanee garab yi dana ko dana ko dindi su fekkee ne yàlla dafa dogal tamit sa mbaax nekkul lu lu normal loo xam ne weer wi ci bés bi ñu ko war a gis daawoo ko ci gis nga xam ne <laughs> tey nga gis ko la 5 ginnaaw suba nga gis ko la kaat loolu noonu nga xam ne dafa indi jafe-jafe ci wàllu amam doom yàlla dogal na mën nañ ko dindi ak jigéen ñi nga xam ne seen biir dafay am lu mu deret lu mu deret boobu xam ne ñu ngi koy ooyee fibrom loolu noonu dañ koy faj ba mu set wecc ci jigéen ji nga xam ne daf daf koo dal ak jigéen ji nga xam ne dafa am li ñuy wax kyste ci wàllu yaramam loolu tamit am nañ ci saafara su baax a baax a baax a baax boo xam ne soo ko naanee rek dafay gaaw daal di dañ te it góor ñi am na ci ñoo xam ne ña wàllu ñàkkum doom mi jigéen ñi di jàmbat am na ci ñoo xam ne si seen ay borom kër la nekk moo xam seen wàllu ndox dafa wàññeeku ñii nga xam ne seen wàllu ndox dafa am feebar bu ne ci ndox mi ak ñi nga xam ne seen wàllu waay yàlla yi ne ci suuf mooy ñaari doñ yooyu nga xam ne mooy tax nit ki mën a am ndox mën ñu ndox moo noonu waaye yor waaye yàlla yooyu bu fekkee dafa am tawat du ne ci waay yàlla yi ba tax mënta am ndox moomu nga xam ne mooy tax sabab mooy sabab doom am nañ ci saafara soo xam ne nit ki su ñëwee incha allah bu ñu ko ko joxee rek ci diir ñaari semaine loolu mu teqali moom am na ci tubaab bi dañ koy wax euh, euh, li nga xam ne mooy varicocèle varicocèle googu nga xam ne tubaab bi moom lay wax ñun moom la ñuy ci wàllu waay yi nga xam ne mooy tax nit ki mën a am man nuyu googu kooku su fekkee yàlla dogal na ci moom mu naan ko incha allah dana teqali koog moom ba set wecc moom luy nga xam ne mooy wàllu pajum cosaan mi nga xam ne yàlla yàllaa ñu ko donnuloo yëpp ñu góor-góorlu ci góor lu goo xam ne àddina yëpp seede nañ ne man mi nga xam ne maay Cheikh Omar Diop liggéeyu pajam cosaan mii am na fu mu nekkoon am na fuñ ko indi am na fuñ ko yóbbu euh, télévision yi daanaka min nañu rajo yi min nañ ñu internet bi it min nañ ci wàllum paj mi fu nekk la nit di bàyyee ci àddina bi di ñëw ci ñun dañuy seet si ci wàllu pajam cosaan léegi pajam cosaan bi sax tubaab yi ñoo nga gën a ittewoo tubaab yee gën a ittewoo pajum cosaan mi moo tax nit ki ci fekkee ne yàlla dafa dogal mu nekk koo xam ne africain na nekk nit ku ñuul bu mu jëggaani am paj ci kenn na ko ñëw ci fajoo ko ci pajum cosaan bi man maa ko wax man Cheikh Omar Diop ndax li nga mën a am ci pajum cosaan fii mënoo koo am ci pajum tubaab bi tubaab bi mënuñu mënuñoo faj mu nit ku ñuul lañ mën mooy jox la ay ay garab yoo xam ne daf lay taneel wala ñu dagg sa biir wala ñu dagg sa cër génnee tawat di nekk ci yow nga teqale ko moom waaye bu dul pajum cosaan moo xam ne lii daf koo danga koo doon nekk si ay waajur wala mu nekk lu la dab loolu boo naanee insha allah suñ ay garab da ngay teqali koog moom ba mu set wecc ci sa yaram